jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci Wassare News ci cant ak ngërëm ñeel na leen comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di wër ñi nga xam ne ni ñooy borom yi xam-xam di seq ak ñoom waxtaan ngir li tukkee rek ngeen ci gisee njëriñ loolu di mën di jëflante ak ñoom ci gis seen bopp loolu moom moo waral ñu ñëw seet si beneen borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ko présenté ñu koy wax Serigne Cheikh euh, Mouhamed Thiam. Cheikh Mouhamed Thiam nag mbokk moom la ñu seet si lu teew yi na daal comme ni ko olof di waxee dañ leen di mu présenté wu wax moom mooy kan ak lenn ci ay jaar-jaaram ngir ngeen gën koo xam sëñ bi bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah uh, rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ak waa diaspora bi di nuyu kilifa diini ak kilifa aada yi di kontaan ci seet bi nga xam ne ni seet ngeen ñu ko eh, ngir dimbale jaamu yàlla yi ak laaya biir ñi nga xam ne ñoo fi nekk am ay soxla yoo xam ne nii bëgg na ñu faju te incha allah fas ci lépp loo xam ne laaj ngeen ko incha allah bu ne ci ñun ay leeral ci kàttu ñaar di la wax ak seen jàmm. Cheikh bi ndaw lañ dëkk Saalum ah, di wax ne ñaan yàlla moom kenn duñ ci laajte ndax te dañ ko doon ci meen doonu ko ci deret gannaaw bi ñuy jàngee lu bëree bëri ci suñu ron maam wax naa ne mu nekk ñun lan njëkk gis sët mu bëgg ñu lool fonk ñu lool lu ci ëpp ci xam-xam jàngal nañu ko ci wàll asraar ci wàllu xam-xamu ilmu nujum ci wàllu xam-xamu ilmu shajara mooy wàllu xam-xamu garab ñi ki sunguf ak reen yooyu yëpp jàngal nañ ci lu bëree bëree bëri gannaaw ba mu làqoo nag ñu ngi génn ci gox yi fasantikoo jàng fa yeneen xam-xam yoo xam ne nii rek ndaxte xam-xam moom du doy ndaxte na ci xadis ne utlubul ilma walaw bi sin na ngeen xam-xam doon def sin ngeen dem rek ba tax na ñun sonn ci xam-xam ci lool lool lool lépp yoo xam ne nii xam-xam la fu ñu ko dégg rek dinañ def suñ kéemtalaay kàttan pour am lu ci jot ba tax na daal alhamdulilah am lu bëri ñu ngi ko ci làmboo lépp mënuñ ko wax nag waaye dafa am xam ne dañ ciy laal allah. xam-xam mën nañ euh, euh, damay seet ndaxte wax nañ ne seet daanaka mooy buntu ñaan yàlla ndaxte sëriñ bu xam ne ne nga sëriñ nga rek te mënoo seet rek sa ñaan yàlla des na. ndax nit ki bala nga ko ñaanal wala bala nga jëflantee moom war nga ko seetal ba xam lan mooy yitteem lan mooy gàllankooram lan moo ko war a ubbi lan moo ko war a teggil gàllankoor yu nekk lan moo ko war a ubbi buntu war wërsëgam loolu yëpp wala seet moo ko mën a wax ba tax na alhamdulilah danañ seet ci seet yu bëri te fasanti ko waaye li xam ne moom seetee moo nekk ramlu ndax wax naa ne ramlu amul benn seet bu ko gën a wér ndaxte yàlla moo ko jox jibril mu ñëw jox ko yonent yàlla Idris mu jàngal ko ci buñ tefes gi ba tax li nga xam ne nii mooy wàllu ramlu ñun moom la ñuy seetee te képp koo xam ne nii seet nañ si wàllu ramlu lépp luñ la ci wax incha allah da nga bàyyi xel te gis la te du yàgg dara ndaxte wax naa ne seet dafa doon loo xam ne nii képp koo xam ne nii seet nañ la digal ay sarax nga def ko incha allah ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne nii wax nañ la ko da ko gis su fekkee luy ñëw la damay agsi ci jàmm su fekkee loo xam ne loo dàq la incha allah nag ci mucc te wax naa ne képp koo xam ne seet nañ dig la ay sarax incha allah boo defee sarax yooyu sa xaaju dina faju ndaxte wax nañ ne sarax dafa doon loo xam ne ni lu mu war a fonk la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa na ko yàlla digal nañ ko ci alquran wax nañ sax ne sarax boo ko defee incha allah su fekkee jàngoro dal na la mën na laa fànqal jàngoro boobu ba nga wér su fekkee sa fan dafa waroon na gàtt sarax boobu mën na la kaa fànqal ba fan gudd su fekkee ay gàllankoor ak ay jafe ci nga ne incha allah boo ay sarax mën na laa dimbale ba gàllankoor yëpp tegee ko ba tax na daal ñun suñu sarax képp kuñ ko digal nga def ko ni ko waxee incha allahu taala kenn mënu laa teree dem ci kanam. ramlu mooy moo nekk seet bi nga xam ne nii ay tomb lay doon comme euh, mën na la ci wan misaal. li nga xam ne nii mooy ramlu su fekkee da nga ñëw bëgg ñu seetal la nga yónnee sa tur yónnee sa tur yaay incha allah bu ko defee ñu tomb tomb yi nag euh, wax nañ ne euh, dina am euh, tomb bu nekk da nga ci tomb lu ma douze tomb nga def ko ba mat quatre fois soo ko paree nga wàccee ko yaa xam ni nga koy wàccee nga wàccee li ñuy tuddee doom yi wàccee li ñuy tuddee baay yi wàccee li ñuy tuddee maam yi noonu lay tomb di demee noonu la ramlu di demee xam-xam bu compliqué la waaye lépp loo xam ne wax nañ ko si wàllu seet rek laa chaque fii ne ko gis kon ba tax na daal xam-xamu ramlu lépp loo xam ne nii seet nañ ko ci gis ko ci wax ko ci incha allah dara du ko dindi kon ba tax na daal dañuy tënk rek ndaxte waxtu bi dafa xat te waxtu dootu noo xot kon loolu moo xam ne nii mooy xam-xamu amul benn seet xam ne nii gën naa wér ramlu waaw. beneen dañu koy def ba ku ñëw si waaw alhamdulilah li nga xam ne mooy wàllu nopp dafa doon loo xam ne nii dafa jafe lool te jafewut ci kan la jafe ci ki nga xam ne nii xamul biddiw ndax su fekkee yow xamul biddiw nga bëgg a nopp dafay doon jafe nit ki bala nga ko nopp ba jàpp ko il faut nga xam biddiwam xam kii ci fan la bokk nga xam kii ba xam hawaa la wala naar la wala maa i la wala turaab yu moo xam nga xam bidiwam ndax bidiw suuf la wala bidiw ngelaw la wala bidiw ndox la wala bidiw safara la yooyu yëpp nga ko war a xam xam ni boole ba pare incha allah bu ko defee nopp bi ngay nopp nopp boo gis na dafa am bés bu ñu koy nopp xam ne nii hawaa yu la moo nekk ki nga xam ne nii bidiwam ngelaw la dafa am jour boo koy nopp am heure boo koy nopp ki nga xam ne nii bidiwam safara la dafa am jour boo koy nopp am heure boo koy nopp ki nga xam ne nii bidiwam suuf la dafa am heure boo koy nopp am toujours boo koy nopp incha allah boo ko defee amul kenn koo xam ne ni dana mën a tàqale ak moom ci kàttanu yàlla te nopp boobu ko liggéey lu mu tuuti tuuti bu ñu ko defee du man ñetti fan mu te gisoo résultat te ku mënta doon nag moo xam tubaab la moo xam da ngay moom ci wàllu entreprise nga bëgg sa patron la nga bëgg mu respecté la wala nga bëgg fa am yenn place incha allah bu ñu la ko nobalee ci kàttanu yàlla sa xaajo dina donte da gis ay nit yu bëggante wala ay nit ñoo xam ne ñu ngi liggéey nga war a bëgg raxal seen diggante mën nga leen nopp ba lépp loo xam ne ñu ngi koy def mu rafet lépp luñ bëgg mu yomb ñu ànd seen diggante seen ànd bi rafet kon nopp yemul ci wàllu mbiru sëy rek ba ci nit ki nga xam ne dafay liggéey nit sax war na ko mën a nopp ba lu mu bëgg ci moom mu am ko waaw. Euh, wante balaa waaw tëju gi li koy saafara li koy waral li njëkkee ci li koy waral li waral tëju gi mooy cat doomu aadama damay tëju umu mënta am daara bunt bu mu fëgg mu tëju lu mu lijjanti du sotti comme jëflanteet mu war ko loolu dara waralul ko lu dul cat te cat boo ci bëggee mucc da ngay def kaaraange kaaraange nag im nañ ci ay. xam-xam yoo xam ne nii dara mënu ko dund ay xam-xam yu wér la yoo xam ne nii ñu ngi ko indi fii di ko def di ko def jaamu yàlla yu ci gis seen bopp benn bi mu ngi nii la ndax soo gisee njaq bi ñu ngi koy liggéey ci allah muhammad ndaxte àdduna bi yëpp yàlla la ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom rek ñoo nekk ci bi lépp loo xam ne nii wax nañ ko lépp loo xam ne nii def nañ ko diglu nañ ko suñ ko defee incha allah kenn mënuñoo teree mucc kenn mënuñoo teree tedd kenn mënuñoo teree raw kon ba tax na lii njaq la bu buñ ko liggéey ba pare dañ ci allah muhammad la ñuy defee xaatim bi suñ paree am na ay alquran yu ñu koy wëralee suñ paree li nga xam ne nii mooy saafara fii lañ koy dugal suñ ko sang suñu ko xoojee ba pare jox la ko nga sangoo ko boo sangoo ba pare nga toj njaq bi dégg ci incha allah ca kattan yàlla ca biir dund kenn du liggéey mu jàpp la kon da ngay defal kaaraange ba pare doo ko dugg ci wàllu ubbeeku ak kaaraange tamit danañ ko liggéey ci li nga xam ne ni mooy ndomba bii soo gisee ndomba bii di nga ko ni juróom-ñaari bootaala la moo nekk téere yu ndaw juróom-ñaari téere yu ndaw la mu am juróom-ñaari gaw te incha allahu taala buñ la ko defalee ba pare ba gawal la ndomb bi boo xëyee sax di uti sax bul gaw juróom-ñaari gaw yëpp ndaxte boo xëyee di uti gaw juróom-ñaari gaw yi doo am dara ndax da ngay umu waaye boo xëyee di dem di uti lu bon bon na nga gaw ñetti gaw yi danga dem uti danga nga mucc da am te gàllankoor du la dab boo ko gawee doo dugg mukk ci oto oto mu accidenté fekk bi mucc na doo dugg ci ndox jàpp ca doo dugg ci gaal gaal bi am jafe-jafe ndomb bi daal fekk yaa ngi ko takk. mucc nga képp ku la jege sax mucc na lama bii ñu ngi koy liggéey waaye nag dafa doon lama boo xam ne nii jafewut dafa jafe ndaxte bëri na ñoo xam ne ñu ngi koy mbuboo wala bëgg na bëri ñoo xam ne ñu ngi koy tudd tax xamuñ ko kon ba tax na ndomu baa xam ne bëgg nga mucc ci wàllu kaaraange incha allahu taala buñ jëflantee ci ndomu bii da nga gis sa bopp kon wax ak yeneen ak yeneen dinañ koy liggéey tamit ci sunguf yaa ngi fi alquran yaa ngi fi ndax maanaam nii lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey rek ci alquran lañ koy teg ak sunguf ak reen ndaxte loolu rek moo fi nekk ci àdduna bi ndaxte xam-xam lépp loo xam ne nii alquran la rek am na aay bu mu war am na sunguf su war a àndat wala am na ren bu mu war a àndat boo bëggee kaaraange wala nga bëgg ubbeeku waaw loolu wax ci wàllu euh, nga li nga xam ne moo euh, euh, nii moo nekk wàllu loterie moo xam pari foot la. wala loterie yi nga xam ne mooy daw ci diaspora bi mu xam euro million bi la wala méga million bi la wala euh, jackpot bi bu mu ci mënta doon rek incha allah boo jëflante ñun sa xol dina sedd ndaxte teraanga yu nekk nit mun ñu ko ci jox lu ne nit mun ñu ko ci jox ci teraanga te yàlla gannaaw yàlla ak fi ñu jaar ak ñoom loolu moo tax kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax di. rafet njort ci yàlla mi nga xam ne ni moo ñu jox xam-xam boobu dañu ci jox ndigal ndax ñun lépp loo xam ne ñu koy def la lañ koy defee duñ def dara loo xam ne ni santul ñu ko ñun dafa mel ni ay ndaw yu ñu yebal dafa lu ñuy wax yu rek ñuy def wala dafa ñuy wax rek ñuy wax ba tax lépp loo xam ne nii bëgg ko ci wàllu loterie moo xam bu mu mënta doon méga million wala jackpot bi wala euro million wala pari foot bi incha allah buñ jëflantee sa xol dina sedd dina la jox résultat yu leer nañ te incha allah ni ñu koy defee noonu la amee ci kàttanu yàlla waaw kon ku tànn ay boo ñëwee dinaa la wax équipe bi match bi ñu demee bi mooy gagné. Ah. waaw incha allah. ak ku euh, mu mën di nekk allah boo ñëwee dinaa la jox résultat yi. mu ngi dépendre ci rawxaan bi yow sa rawxaani ya yow mi xam ne yaa ko bëgg mu ngi dépendre ci sa rawxaani ya waaw. du ngeen xool aussi ba xam gain bi maanaam nit ki li mu teg est-ce que li muy gagné dana dëppoo ak li nga xam ne moom lay fay sëriñ bi pour mën ci am bénéfice ak yooyu. non non ñun loolu soxla ju ñu soxla ñu ñu waxal la ñun ndax mel na ñun duñu laaj rek wax la waaye ñun duñ ci xool boo gagné lii ngay am ak loolu euh, ñun neew ci yow yaa bëgg a gagné ndax wax ne lii nga bëgg ñun ñu wax ne lii la ñuy defee fekkee d'accord nga ñu jëflante su fekkee d'accord nga dem seet keneen ndax du nekk loo xam ne du ñu neexal nit duñ ci neexal nit ndax ñun dimbal doomu aadama mooy tax ñu te ku ne dimbale ku ne lu taxaw dana neexal waaw. yu bëree ah. euh, euh, euh, li nga xam ne nii moo nekk wàllu yéex a sëy moo xam góor la jigéen la bëgg li koy waral li koy waral lenn dañ lu ci gën a fës moo nekk mbiru rab liy gaay naan faru rab. wala li gaa yi naan jànqarab da nga gis góor goo xam ne dina bëgg jabar dana am alal dina am lu mu ko yoree dina am fu mu ko dugal dina am lu mu ko koddaayee bu ko takkee waaye daal takk moo doon jafe-jafeem dina dem ba gis ndaw si ba waxaale ak moom ba war a def lu takk rek waaye day mel dañ ko wax ne ko na nga ba loolu li koy waral mooy mbiru faru rab moo koy waral wala tamit ay gàllankoor ay jafe-jafe yu ay liggéey yoo xam ne ñu ko def seen diggante ak yéen ndaxte ku nekk xam nga ne mbiru sëy dafa am lu bon loo xam ne ni ñu ngi ko ci def ni dana lay dégg nga ne da ngaa bëgg diw moom diggante moom ñaaxut ko wala yéenewul la ko rek mu dem dëddale la loolu dana bëri dana bëri am na ñoo xamante ni nag dañuy yéex am jëkkër moom la ñu toog 40 ans 50 am jëkkër waaye bu mu ci mënta doon incha allah bu mën nañ koo def ci téere boo xam ne bu ñu ko takkalee balaa téere bi di tilim nga dégg alxayri moo xam góor nga moo xam jigéen nga mën nañ la ko defee tamit ci cangat cangat bi bu ñu ko tàngatee nga sangoo ko bala mot 41 jours da nga dégg alxayri moo xam góor nga wala jigéen kon mbiru jëkkër wala mbiru jabar incha allah ñu ngi ciy bàyyi waar bu am solo euh, waaw. alhamdulilah li nga xam ne moo nekk wàllu kayit dafa doon loo xam ne nii lu doy waar la te tamit lu jafee ñaan la ndax di ñaan loo xam ne nii ah xamoo kan kay xamoo kan ngay ñaan parce que sooy déposé kayit da nga xam ne déposé naa kayit ci entreprise nangam waaye doo xam entreprise bi kan mooy chef bi. wala kan moo yor sa dossier yooyu doo ko xam kon da ngay ñaan rek waaye loolu tamit ba tey day fekk nga euh, euh, sori ci wàllu lasaraar ndaxte wax naa ne lasaraar dafa bëri buntu sooy ñaanal nit ki te xamoo ko dafa am foo ko war a jaar sooy ñaanal nit ki xam ko dafa am foo war a jaar sooy ñaanal nit ki xam ko xamoo turu yaayam wala nga xam ko te xamoo bidéo dafa am foo ko war a jaar yooyu yëpp dafa am yoon bu ko war a jaar ba ràññee ko ba tax looy ñaan yàlla mu gaaw a nangu. kon li nga xam ne moo nekk mbiru këyit képp ku ñu si jëflanteet 41 jours incha allah sa xaajo di la faju dinañ koy liggéey ci wàllu riyaada moo nekk xale boo xam ne ñetti fan lay am ñu tëj ci ñaan la ci yàlla yàlla faccee xaajo këyit yi ngay lijjanti sotti danañ koy ñaan tamit si xale boo xam fan ça dépend yow ni ñu bëggee këyit yi gaawee waaye délai bi moom 41 jours la incha allah sa xaajo faju euh, loolu yaa ngi ciy jëflante ay nit di ci gis résultat. waaw man lépp loo xam ne ni maa koy def rek gis ma résultat damay bàyyi ndaxte man résultat moom a ñor lépp loo xam ne ni def naa ko ñaa def ko ñaari yoon ñetti gis ma ci résultat damay bàyyi kon lépp loo xam ne maa ngi ciy def ma gis ma ciy sóobu nga ma ci wax ma ci nangu ko insister rek xamal résultat bi nga ciy feeñ waaw. Euh, kilifa gi mhm. euh, mhm. mhm. nga ma ci yoon. Euh, loolu noonu ban solution nga ko amal. waaw xam nga nit ki su fekkee dañ ko yorale bor. amoo loo ko fayee jamono jàpp na la nga nekk si ay jafe-jafe jamono tënk la mënoo ko koo fay waaye ba nga xel fay ko incha allah mun nañ la koo tàggatal di dinañ ko def ci àlluwa xànjar danañ ko xaatim boo xam ne nii dinañ koy rëdd dugg ko ci àlluwa xànjar teg ko si safara si di ko tàngal am ismullah azam bu ñuy wér da incha allah am na àdd bu ñu ci wér suñ ko wér daa ba pare moom dañ la muñal ba heure bu amee fay ko doo topp ci dara danañ tàngal yaramam bu lépp loo xam ne wax nga ko daan na ko def ba ci tamit ki nga xam ne ni yow moom moo la yoreel bor nga bëgg mu fay la tamit kazaalika noonu nga koy defee nga tàggat ko ba lépp loo xam ne wax nga ko donte day jaay këram fay sax dana def loolu fay bor noonu lañ cee liggéeyee. kon daal ki nga hmm. jaratul sax muy dem tribunal. déedéet allah bu jëflante ñu dana ko fay borom ci nu mu gën a gaawee nag waaw. bu ma juumul démb la diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 euh, combat boobu noonu lan nga ciy wax. waaw di waxaat euh, alhamdulilah beneen yoon euh, di wax ci mbiru làmb di ci waxaat ndaxte dama waxoon sax dootuma ci wax mais jaamu yàlla ñu ko yittewoo ndaxte dama génnoon def interview ci Eumeu Sène contre Lac de Guiers 2 bi combat bi desee presque de semaines comme trois semaines bi ma génnee am na lu ma ci waxoon. waaye nag dafa fekkoon làmb ji fekkul ma fi fekkul ma Sénégal fekk na maa ngi côté Gambia loolu moo tax mënu moo a génnaat def interview bi làmb ji ñëwee waxoon naa leen ne Eumeu Sène dina daan Lac de Guiers waaye nag Eumeu seen moo daan boppam ak ñi ko wër ñoom ñoo ko daane ndaxte am na ay sarax yoo xam ne daf ko waroon def te defut ko ndax soo gisee Eumeu Sène bu ñëwee ba jour làmb yi sax dafa mel ni kii dañ ko gagné mystiquement xamul lu muy def sax Lac de Guiers da koo njëkk a jóg da koo njëkk a ndaxte Eumeu Sène moom moomoon victoire bi waaye plané bi mu plané ci wàllu galaaj loolu moo tax Lac de Guiers ko kon képp koo xam ne nii mbër nga ñu ngi lay dénk duñ la waxee làmb ay bu ñu la waxee mbiru sarax foo mën a taxaw rek fexeel ba def sarax yooyu waaye nag loolu ñu leen wëru ñoo leen mën a jàppale combat bi nga xam ne nii moo nekk Ama Baldé contre Modou ak euh, Balla Gaye contre Boy Niang combat Balla Gaye contre Boy ñaar duma ci wax léegi waaye bu làmb ji jege si dinaa leen génn wax leen kan mooy daan ci kattanu yàlla incha allahu taala waaye daal euh, Boy Niang moo jug si boppam ci wàllu mystique ndax na xam ne mbër lay dajeet doomu Casamance lay dajeet maa ngi koy dénk loolu. ki nga xam ne moo nekk Ama Baldé contre Modou Lo combat royal la te ku nekk xam nga combat royal waaye ki nga xam ne moo nekk Ama Baldé maa ngi koy digal sarax bii su ko defee incha allahu taala yàlla mën na ko may te du am benn werante sarax bi na génnee ñett nag nag bu weex nag bu xonq ak nag bu ñuul incha allah bu ko am na nuñ ko koy nuñ koy diggalee sarax bu ko defee expliquer ko nu su ko defee ni ko war a defee incha allahu taala kenn mënu koy teree jël roi bi combat boobu incha allah bu jege see dinaa ci ginnaan waxaat ci kon loolu laa lay wax ci mbiru làmb léegi Eumeu Sène bi da nga ko ay sarax wax ko ko moom ci jëm boppam wala ñu ko jege wala da ko waxoon nii rek. waxoon naa Eumeu Sène mooy daane Lac de Guiers ba ma ko waxee Eumeu Sène woon na ma kii woon na ma ay supporteurs am na ñu woo am leen wax ci sarax defuñ ko Lac de am na ay mbokk yu ñu woo ba ñu wooyee am na lu ñu jëflanteeg man du ko wax nag ba am na lu ñu jëflanteeg man ba ko defee incha allah yàlla may na leen ndam hmm. waaye Eumeu Sène sàgganteem ak sàgganteem waa ay supporteurs moo tax ñu daan ko. Ah, li may tàggatoo di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm président Macky nag mooy président de tous les sénégalais te ñaanal yàlla may ko kàttan ak wér ak mën-mën mu mu at mu agréé mandat bii di ñaanal yàlla kilifa diine kilifa aada yi yal na yàlla yàggal leen fi yàggal seen taxawaay eh, di jaaree kii waale Thione Seck eh, yal na yàlla wéy na ko xare ko ko mboolem ay rëcc ci téefam lépp loo xam ne def na ko ci lu baax yal na ko yàlla fulal. Euh, di ñaan yàlla koor gi nga xam ne ni ñu ngi ci yal na yàlla nangu suñu koor lépp luñ ci jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu yal na yàlla barkeel ci yëngatu lépp loo xam ne def nañ ko ci dëngte yal nañ yàlla jéggal di ñaanam jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk di ut liggéey te te mu të wala te mu jafe yal na yàlla yombalal leen seen liggéey euh, di wax ne loolu laa amul lu muy wax di wax ne a aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin